internet de Feeling Dakar mbégte ak contentement lay am saa su nekk jàkkaarlu ngeen fi nga xamante ne moom moo di Feeling Dakar ak kan ki nga xamante ne moom moo di pël bu rafet ñi ngi fi nga xamante ne moom moo di Géejawaay ci ara ñoo woote ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fans club Balla Gaye 2 ñoom ñooy joxe ndogu tey fi nga xamante ne moom moo di ci Géejawaay ma ànd ceeg kan ki nga xamante ne moom moo di Mor Mor danga may topp tey ñu xool tey fans club Balla Gaye 2 ak Balla Gaye ak Sa Thiès nan la ñuy joxe ndogu ñi nga xamante ne dañuy jàll Sada molo molo e jambaro Sada nyago nyago doko mota kamande yake da ma ya hatara jamna wale madina lai lai la la jamna wale madina ah. jamna wale madina waliya waliya jamna wale madina ah. gonko wale Seku maral fundiu Sara gorana Papa Kote ya te suba kàjja wuroon naa ngi woore tara taanum day sofi mu Cerno Muntaga Cerno Cheikh Omar Basiru Taal jom gandal jom pelliral waliyu Allah mu alda yelural Feeling Dakar comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek nee naa leen ñi ngi fi nga xamante uh, moom moo di Guédiawaye ñan ñoo wootee fans club Balla Gaye day di joxe li nga xamante ne moom moo di ndogu ñu taxaw ko xamante ne moom aussi tamit ci fans club bi la bokk yàgg ci lool muy ki nga xamante ne moom moo di Aji la uh, bu Balla gay de Aji maa ngi lay nuyu di la ziar di la kontaane bu baax a baax ñi ngi delloo ziar bu wér a weex di gërëm waa bi di leen wax masa coon ndax woor dafa metti nga def déplacement dérangement ñëw ba fii loolu metti la mais li ñuy wax rek chaque jour li nga bokk ak liñ la boole du benn yaakaar naa yéen da ngeen bokk ndax du tey dong yàgg ngeen ñoo taxaw ci lépp kon yaakaar naa dañ leen di jaajëfal di leen sargal di leen nuyu. Hmm. ok aji tey initiative bi naka la leen dikkee ngeen toog ne idée bi nii da ngeen di def li nga xamante ne moom moo di ndogu parce euh, dañ ko gis léegi Sénégal euh, chaque weeru koor rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay jeunes dañuy organiser ndogu ci seen koñ di ko jox ñi xamante ne ñoom ñoo di euh, ñi passager yi nga xamante ne dañuy wàcc heure ndogu du leen fekk seen biir kër te nee nañ nga woor ba weeru jot rek nga yëkkati benn doomu tàndarma jox ko doomu aadama xamoo yiw yàlla bi nga xamante ne moom la la ci suñu borom di dimbal waaw loolu moom mën naa ni yiw la rek parce que li ñuy wax rek chaque jour suñu borom dafa am lu mu wax fa man yaama mit xaala jaratin xayran yara wa man yaama mit xaala jaratin charan yara soo ma defalee lu baax ma fay la lu baax nga defal ma lu bon ma fay la lu bon kon dañuy ñaan yéene biñ ci am ba def ko yàlla na ko suñu borom mottali yàlla nañu ko suñu borom fayal boppam ndax yaakaar naa jox xiif nit nit xiif nga jël ko jox ko mu lekk loolu fay suñu borom dong nga ci mën a am ndax nit mënu la koo fay tey nag mën naa ni ñu am uh, benn programme boo xamante ni dafa yàgg nekk suñu souhait ndax suñu sañoon le 8 mars bi lay doon mais xëy na tey jii tey la ko yàlla dogal tey mu nekk bis boo xamante ni dañ koo jagleel ñi nga xam ne ci tali bi lañ nekk ndax tey ji am na ñoo xam ne guddee nañoo wàcc ñu am luñ dogoo tey nag ñu ne xaar ñu jël suñu dooleey poos ñu jël ko génnee ko def ko partagé ko nit ñi mais lépp tamit di ci gërëm ki nga xam ne moom moo ñu jiite ndax liñ naan peccum liir neex na bu neexee nday jaatee ca mbagg ya lépp Assane la ndax mën naa ni su doon su doon ak moom ñu am xel bi mën naa ni mook Cheikh Ibra ñoo programme li ci quelques jours yàlla dogal lii mu am woo Omar Balla Gaye woo Sa Thiès ñoom ñu ñëw taxaw soutenir ñu jàppale ñu moo tax lii tey jii ni mu am waaye. ok lan ngay wax fan si Balla Gaye 2 yi comme ça kat peut initiative bi ngeen def rafet na lan nga leen di woo pour ñu ñëw wuy leen ci combat bi nga xamante ne dëgg dëmmal ngeen ko muy yëpp ren moom mooy seen première édition te macha allah am na réussite totale parce que nee nañ tout début est difficile mais tey jii seen première édition bi ku fi ñëw rek da ngay jàpp ne lii lu ngeen yàgg a def lay doon. waa dëgg la parce que liñ naan chaque jour soo bis bis du la jaaxal. li ñuy wax rek chaque jour ndax ñun 2006 ba léegi ñu ngi ci Balla Gaye 2 2006 ba léegi ñu ngi ci ay bisu Balla Gaye programme Balla Gaye kon yaakaar naa ñun amul benn bis boo xamante ne moo ñëw di ñu jaaxal moo tax bis bi tey mu yomb ci ñun ba képp ku ñëw da nga yaakaar du benn yoon ko def tey moo nekk premier jour ñu def ko kon li may wax rek mooy fans club yi nga xam ne ñoo jokk ci Balla Gaye 2 nañ ñëw xam ne fans national bu Balla Gaye 2 mooy lépp te ñun ñëpp li ñuy wax rek chaque jour nday kenn mënu koo xañ doomam te fans club Balla Gaye national moo nekk nday képp ku ñëw rek doomam ngay doon lii lépp rek liñ naan Balla gay 2 la parce que lan yaatu moo tax lii mu am ndax tey jii beneen fans club mi Sadio Sakho famille ngi fi ay Balla famille yu nekk mi ngi fi mais ñoom ñëpp tey ji dañoo bàyyi lépp ñëw fii soutenir fans club national Balla Gaye ndax li ñuy wax rek fans club national Balla Gaye moom nday di seex la njaaxaanaa lay tuddee ku ñëw rek bërëngu ci kawam noonu la fa demee. ok aji lan ngay tàggatoo ak ñan ngay gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci bés waa maa ngi gërëm jigéen ñi surtout jigéen ñi ndax mën naa ni àddina moom su jigéen amul dara du am mën naa ne tey jii jigéen ñi taxaw nañ fi taxaw lu rafet mais kenn du suñuy góor waaye tamit kenn du koo xamante ne mooy suñu président muy Assane Cissé mën naa ne lépp moom la ndax mën naa ne sonn ci daayiwu ci xaalisam dem na ci leneen ak leneen dem na ci li ñuy wax rek chaque jour nit moom soo ko xeebalu bisam rek lépp loo am na nga ko ciy def te Assane loolu la def dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaan yàlla lim si bëgg yàlla na président bi ko jox ba muy sos lii lépp yàlla na ko ci yàlla may kawe bu mu jot di di gërëm ñoom xaadim ñi nga xam ñoom ñëpp bàyyi nañ seen teewaay seen teewaay feneen ñëw fi teew fi di gërëm ñoom ah, Pam Ndiaye ñoom ah, Cheikh Ibra xale jigéen ñi ñëpp parce que fii moom ku lim juum mais tamit di gërëm ki nga xam ne nag ñaar ñi nga xam ne ñoo waral bis bi muy Sa Thiès ak Balla Gaye 2 bàyyi nañ seen lépp ñëw tey yombalal ñu ko mais nii rek lañ mën a def ndax lañ naan su su buur ba euh, su jinne bëggee Dakar ku yëg ku nekk rek da ngay daanu ok ami internet de Feeling Dakar comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek nee naa ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fan si club Balla Gaye ñoom ñoo woote fi nga xamante ne moom moo leen ñu nekk invité d'honneur ñoom aussi tamit ñu dañ ñëw maas ne ñoo di fan si club Balla Gaye 2 yi fi ñu moom mooy secrétaire général u Sakho family dañ koy bàyyi rek mu daal di wax ñu initiative bi nga xamante ne euh, bi euh, waa euh, club Balla Gaye def joxe ndogu li nga xamante ne moom moo di ci weeru koor bi naka la ko gisee imaam Malick maa ngi lay nuyu di la ziar di la kontaane di la wax déwénati baal ma ak baal naa la. <laughs> pour baal la baal nañu yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekkee at yu bëri au fait Pape Malick secrétaire général du Sakho Family tey waa national Fatick Club Balla Gaye international ñoo organisé euh, ndogu bi yaakaar naa ne tey mooy première édition invité ci waa Sakho Family te ñun ak ñoom ñëpp benn lañu ñoo bokk ko séddoo. moo waral ñoom ñu invité ñu ñëw ñu def déplacement euh, ñëw nii tey wuyu si leen wax dëgg yàlla initiative bi rafet la euh, te Balla Gaye ñëw na Sa Thiès ñëw na. te yaakaar naa ne xëy na xat-xatu jamono bi at weeru koor at fu mu toll moo waral ñu bëri sa ñëwuñu tamit xam nga moo tax tamit ñu comprendre ñu bëri xëy na deuxième édition xëy na dina gën a weesu fii tamit waaw xam nga di sant di gërëm nag waa national rawatina Assane Cissé mu ko jiite waa at tamit ñi ñëw ñëpp mi waa Sakho famille jigéen ñi góor ñi at ñu ñëwul tamit xëy na comprendre nañ leen quoi. Hmm. lan ngay wax waa national ginnaaw bi ñu leen defee li nga xamante ne moom moo di invité d'honneur est-ce que du li nga xamante ne da ngeen ñëwoon ci bi ñu naan bleu naan Sakho famille est ko tey looloo tax ñu jox bi. <laughs> moom ku xam-xam ne ci buri la xamee quoi vraiment xam nga macha allah stade moom bii passé combat ñu bi moom moom euh, ku seetaan RFM déglu Mala Junior Euh, chaque instant muy tudd Sakho famille Sakho famille xam ndax macha allah lu ñu fa wane moom dafa taaru quoi vraiment bleu blanc yi moom dafa fës moom. at banderole bu ñu yóbbu woon macha allah xam nga xam naa ne bii ñu ñëwaat moom gën a raw moom. te ñu ne waa national mun naa ne benn lañ rek ñoom ñëpp presque ñoon ñun ñëpp fa lañ bokkoon nekkoon. xëy na nag xëy na peut être ñun nañ jaar ni ñoom ñu jaar ni xëy na combat amee ñoom bu ñu woowee rek ñoom dañuy ñëw. te lii firndeel na ko quoi ñu ñëpp ñoo bokk tamit xam nga ñoom ay doomu ndey lañ daal dara ñaawul suñu diggante quoi vraiment waaw moo waral tey ñu ñoom ñu organisé ndogu ñu invité ñu ñëw xam nga te beneen yoon tamit ñun tamit peut être bëgg nañ organiser ndogu tamit kon ñoom ñu ko defee tamit defee ko noonu invité leen invité suñu ñaari champion yi muy Balla Gaye Sa Thiès Sakho famille de euh, nokk nu mu tudd euh, xamoon nañ ci li ngeen xamante ne moom moo di événement te gis nañ ngeen def tekk-tekkaaral lan moo waral euh, li daan nañ leen gis ngeen di organiser li nga xamante ne moom moo simb bu mbër mi amee combat ak li nga xamante ne moom moo di soirée toog nañ fi ay ati at ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Sakho famille defatuñu benn manifestation boo xamante ne moom mooy regroupé ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fans club na du Touba rek nu mu tudd du Dakar rek ngeen nekk te donc boo leen toogee dafa too leen li nga xamante ne moom moo di regroupement yi ngeen doon def est-ce que doo leen ñàkk ñi nga xamante ñoom ñoo topp ci seen ginnaaw. waaw Sakho famille moom macha allah moom wax dëgg yàlla xëy na dafa juddu rek tur bi jëm si xam loolu moom ñun sax dañuy yéem quoi vraiment. du may wax yow ni jusqu'à présent gars yi ñu ngi géem di ñëw di adhéré te ñun suñu groupe du question rek bëgg dugg dugg noonu balaa ngay dugg da ah, nga avant da ngeen ñu di dugal laj ñu demee ba benn instant ñu toll presque ay deux cent et quelques personnes ñu ne pourquoi pas war nañu xool suñu benn doxalin bu defee képp kuy dugg bu fekkee lu ngay woote dëgg la si bu fekkee da nga bëgg Balla Gaye wala Sa Thiès bu fekkee lu ngay woote dëgg la si yow da ngay adhéré carte membre bu fekkee euh, tamit cotisation mensuelle tamit góor 1000 francs la jigéen cent la. te tamit am nañ beneen objectif tamit bu ñu ko war a doxalee ñu bu paree pour am récépissé boo defee euh, war nañu mën a xool leneen tamit pas tamit topp si ginnaaw mbër tamit xam nga bu amee combat ñu dem jékki-jékki toog war nañu mën a jàppale suñu biir. commencé woon nañ ko sax mais après dañ dem taxaw mooy si caisse sociale bi ku si am feebar wala su si am génte wala tax ak lu mu munti doon. jël ci kees bi jàppale la ko xam nga ñun daal dama jàpp ne comme ni ñu ko waxee famille bi la kon yaakaar naa ne waroon mën a rafet comme ko mën a yemale si làmb rek mbër am combat yi dem après ñu yuuxu ñëwaat toogal ku nekk toog sa place war na mën a di demalante kon la dernière fois xarit Balla mi doon euh, am mariage ñu déplacé wu dem ba Mbaaw keneen tamit naka noonu yow mii naka noonu Touba la dernière fois xëy na même ñu bëri demuñu woon mais yaakaar ne tamit am nañu ñu fa a nga ñun daal am yeneen ambition yoo xam ne bëri nañ daal waaw wax dëgg yàlla euh, barki démb ñaar rek maa ngi waxtaan ak euh, Talla ma ne ko après Korite bi waroon nañu mën a organiser benn euh, réunion bureau bu ko defee ñu ñu def genre pourquoi pas ñu def genre petit commerce jënd ay bagages yi jaayaat. ndax kees bi tamit mënuñu jël benn xaalis teg ko si benn kees muy nelaw foofu rek war nañu mën a ñëw jàppale ko financer gars yi def xam nga bu defee ñu gën a dooleel kees bi quoi xam ok kon su ma déggee sa biir wax yéen xaaroo leen mbër ci dara yéen a ngi préparé seen bopp ba nga ne bu combat amee bu leen mbër bi joxee ngeen dem su leen joxul ngeen dem. waaw combat bi passé wane na ko ndax bu ñëwee ñi ñu ne waa national ñoom xëy na ticket moo tax bu ñu ñëwee bu joxee 30 tamit am nañ compréhension. ok Sakho Family 30 ticket lañ am te d' après li nga wax yéen euh, ëpp ngeen euh, plus de 200 personnes kon naka ngeen dundee loolu. waaw 30 ticket lañ am ah te tamit euh, bu ñu ñëwee tamit Assane Cissé seen président dafa ñëw wax lu fi nekk tamit la wax te yaakaar naa ne tamit loolu tamit lu ñuy ñaawlu la te da ngay wax Omar. tamit loolu tamit il faut mu xoolaat loolu ndax ñi mënuñu fan si club ñu la nga jox mu dul si 500 tickets ñun si ginnaaw dafa bëri te ñu si bëri sax naa ne ci combat a si combat Balla la ko kon nag yaakaar naa ne beneen yoon Omar war na xool loolu tamit mu jàppale tamit fan si club bi jox leen ticket ndax bii passé ñun da dèjà dal nañ 30 tickets ñu mënuñu dara man mi di wax ak yow man sama xaalis man maa jël sama xaalis jënd ticket xam nga am na ñeneen ñoo xam ne peut être leen jël ci caisse ñuy subvention leen ñoom 4000 la ñu yore ñu 3000 ñu jël doole leen nag ti combat yi passé 5000 francs mooy ticket bi du dëgg dafa xawoon méttem tamit euh, moom kon ni nga ko waxee xaaruñu si dara si mbër bi quoi vraiment ndax euh, bëgg dañu bëgg mbër bi mais xaaruñ si moom dara mais mbër bi nag tey mënoo wax euh, mbër te waxoo ay fansam tamit war tamit war na si mën a jàpp si benn côté tamit quoi xool di di di di gestu si ginaaw war fa fan sam peut-être ñuy sonn si moom peut moom tamit bu fekkee dafa am ay ticket yu ñu ko jox balaa ñu koy jox ay ñeneen xam ne peut-être ñëw nañu stade gis nañu ay gars di ko jaay te rafetul quoi vraiment. ay fan ticket yi nga xamante moom moo di ticket mbër bi nga xam ne ay fan sam moom lañu waroon duggee moom lañu gars doon jaay. Hmm. <laughs> waaw <laughs> <laughs> kii bu may rey sax en fait. waaw mais xam na loolu dafa rafetul tamit benn instant loolu moom naa sul quoi benn instant bi quoi ñu ñuy soxla ticket. ticket yi nee na ba fi nga xamante ne moom moo di kër Aziz Ndiaye mbër bi ngeen méttitlu li nga xamante ne dund ngeen ko keroog stade parce que ngeen dajale seen kees ngeen war ci def yeneen comme ni nga wax ne da di dox ci social ngeen dem daggee ko ticket parce que keroog kuy ñëw ci làmb Balla Gaye xam na ne Sakho Family ñëw feesoon li nga xamante ne moom moo di stade bi. waaw waaw kon nu nga waxee rek yaakaar naa loolu moom euh, ñëpp gis na ko ci réseaux sociaux yi. après combat bi gars yi jël ticket di ko sinap xam nga di ko vidéo di ko xam loolu ci dèjà dafa jour am na lu ñuy ñu ñuy jàmmal ticket waa Gambie tamit xam nga ñoom wax dëgg yàlla loolu yëpp war nañ xam naa ne bi di ñëwaat tamit Euh, loolu moom xam naa du demee noonu pour man quoi xam naa erreur bu war a am na te erreur la xëy na xam naa beneen du demee noonu quoi vraiment waaw. Mhm. ok laxal baas dégg nga looy tàggatoo. <laughs> waaw tàggatoo suñuy tàggatoo di sant di gërëm waa national ñoom chèvre ñoom euh, Assane Cissé suñu grand pambay at euh, waa wax dëgg yàlla ñoom gàcce gaale ko at ñu ñëwul tamit wax naa ko sànq sama biir wax weeru koor lañu nekk moo tax ñu bëri xëy na mënuñu déplacé vraiment tamit ñu ñëwul tamit danañu comprendre ñu ñëwul jàppale leen ñun ñu ñëw ñun teew teewal nañ leen quoi xam nga vraiment di sant gërëm ñëpp di jox rendez-vous beneen euh, ndogu boobu Sakho famille incha allah ñu ngi koy waajal nag te di wax tamit xam nga ñu ngi waajal tamit tijji benn kees boo xam ne keesu ndogu lañ ko tuddee chaque euh, cotisation bi def euh, mensuelle yi jigéen bu ñuy cotiser 500 ñun góor ñi 1000 francs dañ ciy xool soit 10 ans peut être war nañ mën a def 250 250 day dem ci benn kees koor gi waaye ñëw ñu génne kees bi ñu xool loolu lañ ci war a mën a dolli bu ko defee ñu organiser euh, ndogu tamit comme ni ko gars yi defee tamit quoi vraiment waaw ok ami internaute de Feeling Dakar mbégte ak contentement laa doon am jàkkaarloog yéen yi nga xamante ne yéen ñiy safoo Feeling Dakar euh, pël bu rafet mi ngi woon fi nga xamante ne moom moo di Guédiawaye euh, plus particulièrement fi nga xamante ne moom moo di Adja Diar Mbaye ñan ñoo woote woon fans club Balla Gaye 2 ñoom ñoo doon joxe tey fi nga xamante ne moom moo di ndogu ma àndoon ak sama caméraman bu ñaawul muy ki nga xamante ne moom moo di moor nee naa bu gis-gis bi leeree dégg-dégg neex du ci ñun ci ñoom la ñoom ñoo di les hommes de l'ombre lépp fi lay xewee ci Feeling Dakar ak kan ki nga xamante ne moom moo di pël bu rafet